mune ne ad darsu saani li mooy darsu ñaareel bi ak Bilal ñooy wax mu ne Hicham ne ko asalaamaaleykum yàlla na wa barakaatu ak barkeem Bilal ne ko waaleykum salaam yàlla na jàmm nekk si yéen wa barakaatu ak barkeem moo keef xaaluk nag def yaa kii yow sama mbokk Hicham ne ko ana la jadidun bees ismi sama tur Hichamun Hicham la أنا من من الولايات المتحدة ماي بوكس ولاية المتحدة bilaal ko ahlan wàccal sa wasalan wàccal wàcc gu yomb wa marhaban yaatal nañ bëgg yaa aqi soo mbokk ana man masrurun aji bég laa si daje gi ma daje ak yow ana man zamilu ko sa àndoor xaamin doomu xaamin amin washington ndax washington nga anta yaa hisham yow hisham

bilaal ne ko alaka ndax ñeel na la ab naan ay doom yaa hisham yoo hisham hisham ne ko naam waaw lii ñeel na ma si tut ab naan juróom benn doom bilaal ne ko atullaabu ndax ay étudiant lañ hum bi tullaabi ay étudiant inna baadahum naka ñenn ñi tujjaarum ay commerçant lañ la banaatun ay doomu jigéen hisham ne ko naam waaw xamsu banaatin juróomi doom yu jigéen bilaal ne ko amutazawijaatun ndax ñu am jëkkër lañ xun na ñoom ishaam ne ko laa déer xun na ñoom la na nekkun bi mutazawijaatin di am jëkkër innahu na na ko ñoom sigaarun ñu ndaw lañ baadahu na ñenn ñi fil madrasati ibtidaay ñu ngi si école commencement bi wa baadahu na ñenn ñi fil madrasati mutawasita ñu ngi si école bi diggu doom bi bilaal ne ko alaka ñu ànd la ixwatul mbokk Hishaam ne ko laa déedéet laysa nekkul lii dama ñeel ixwatun mbokk ne naka ñeel na salaas axawaatin ñetti mbokk bilaal ñetti mbokk jigéen ala bilaal ne ko a muslimaatun ndax ay jullit lañ hunna ñoom Hishaam ne ko naam waaw hunna ñoom muslimaatun ay jullit lañ walhamdulillah ñoo ngi sant yàlla tamarin lii ay jéemantu la ajib tontal anil aslati l aatiya laaj yi dikk laaj yi dikk yow yaa koy laaj min ayna Hicham Hicham fan la jógee sànq dars bi waxoon na la Hicham fu foofu yaa koy tontu min ay madinatin waa ban dëkk la jógee foofu yaa koy xool nga daal di koy tontu kam waxtaan ñaata mbokk lahu ñoo ko ñeel waa foofu yaa koy tontu. mu ne daan tegal haazal alaamatu mandarga gi mandarga bi mu def nii samay firi sax si saxiixa jumla yi nga xamante ni ñoo wér mandarga gi ngay def si jumla yi nga xamante ni ñoom ñoo wér wa si croix. tamay qataa amaamal jumlati lati si jumla si jumla yi nga xam ne laysa nekkuñ saxiixatan di wér yi yaa koy dugal euh, sax bi yaa def si jumla yi nga xam ne ñoo wér xataa bi nga daal def si jumla yi nga xamante ni wéruñ Hicham ne ko Hicham Hicham min Washington Hicham Washington la jógee yaa xool ba xam la wala dégg nga daal di si def sax wala xataa banaatuhu ay doom las na nekkuñ bi mutazawijatin daa jëkkër yu baax yaa yaa xool ba xam sax moo fa nekk wala daal di koy def ummuhu yaayam laysa nekkul bi muslimatin di julleen yaa xool ba xam moo fa war a nekk wala xataa nga def ko ay mbokkam muslimaatun ay julleen lañ yaa xool ba xam sax moo fa a nekk wala xataa abnaahu ay ay tijaan lañ yaa xool ba xam sax nekk wala xataa abuhu baay muslimun jullit la foofu sax moo fa war a nekk wala xatan kon yooyu yaa xool bu yi nga xam ne ñoo wér nga daal di si def mandarga bu ñu la wax sax yi nga xam ne wér daal di si def mandarga bu ñu naan xatan mu ne taamal seetantalal maa yi lii lii dikk xaamid xaamid taalibun étudiant la ak tullaab étudiant yi saxaaru ñu ndaw lañ aminatu amina tabibatun docteur la alfatiyaatu jànqay mutazawijaatu ñoom jëkkër lañ anta yow kabirun ku mag nga antum ñoom jududun ñu bees lañ anti yow faqiratun ku ñàkk ngi jigéen an sunna ñoom mbooloo jigéen mujtahidaatu ñu góorgóorlu lañ ana man mudarrisun jàngalekat la nahnu ñun tullaabun ay étudiant lañ xamid xamidun xamid laysa nekkut bi taalibin di étudiant gis na foofu boobu dugalee laysa lu muy mel ak tullaab étudiant yi laysu nekkul bi sigaarin di ñu ndaw aminatu amina laysat nekkul bi tabibatin di docteur alfatayaatu jànq yi las na nekkul bi mu desawu jaatin du am jëkkër anta yow lasta nekkoo bi kabirin di mag antum ñoom lastum nekkuñ bi jududin ñu bees an mooy ñu góor ñi lastum nekkoo lañ bi jududin si ñu bees anti yow ku jigéen ki lasti nekkoo bi faqiratin di ku ñàkk antum na yéen mbooloo mu jigéen ñi lastum na nekkoo leen bi mu tey daatin di ñuy góorgóorlu anaa man lastu nekkuma bi mu darrisin di jàngalekat ndax nu ñun las nekkuñ bi tullaabin di ay étudiant mu ne adxil dugalal laysa laysa alal jumla al si jumla yi dikk jumla yi dikk nii yow yaa si def laysa dugal ko si jumla yi nga xool mujjantal ma maas yi boo dugalee laysa dafay changé nga daal di kay setantal bu baax mu ne albaabu bunt bi moo loqul tëj laa si dugal nga bunt bi nekkul di ndox bi baari dun ay sedd yaa euh, sedd Hicham Hicham maridun ku feebar la yaay eh, Hicham nekkul di ku feebar abi sama papa naayimun aji nelaw yaay si dugal laysa mu nekk sama papa nekkul di ku nelaw ak darsu darsu bi saabun aji jafe la yaay si dugal laysa mu nekk eh, darsu bi nekkul di lu jafe al masjidu jàkka ji xaribun lu jege la yaa si dugal laysa mu nekk jàkka ji nekk lu jege ak tiflu xale bi jawaanun aji xiif la yaa si dugal laysa mu nekk eh, xale bi nekkul bi jawaan bi jawaan moom def si mujj gi noo nga koy defee bi jawaan di xiif mu ne iqra jàngal al misaalay ni ñaari misaal yi summa adxil topp nga dugal laysa laysa alal jumal aatiya si jumla yi dëkk misaal ñaari misaal yi yaa koy jàng yeneen yeneen yi si des yaa yaa yaa si dugal laysa si jumla yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw yeneen jumla yi ñëw yaa si dugal laysa waaye moom jox na la si ñaari misaal huwa moom taajirun commerçant huwa moom lay nekkul bi taajirin di commerçant gis nga bu si dugalee lay si muy mel huwa moom minal yaabaani mu ngi yaabaan huwa moom lay nekkul minal yaabaan di yaabaan as oto bi jamiyatun lu rafet la oto bi nekkul di lu rafet yaa si dugal lay mu mel noonu ana man kurish la yaa si dugal lay anteew faqirun ku ñàkk nga yaa si dugal lay hiya moom ku jigéen ki minal iraq mu ngi jóge iraq yow yaa si dugal laysa ndax nu ñun azkiyaa un ñu ñëw lañ yaa si dugal laysa huwa moom azabun célibataire la yow yaa si dugal laysa almudarrisuna jàngalekat yi fi fusuuli ñoo ngi si yi yaa si dugal laysa mu jàngalekat yi nekkuñ ci classe yi mu ne anti yow zakiyatun ku ñëw nga yaa si dugal les yaa antum yéen kibaarun ñu mag ngeen yaa si dugal laysa ab taalibaat étudiants yi fi maktabati ñoo ngi si bureau yaa si dugal laysa antun na ñoom antun jigéen taalibaatun ay étudiants yi juddu ñu bees yaa fi dugal laysa ajib tontal anil asilati l aatiya si laaj yi dikk bi na fi si mustaamilan di jëfandikoo laysa laysa bàyyi dikk yow yaa koy tontu boo koy tontu nag si nga siy dugal laysa maanaam du ñu dàq am muhandisun ndax ingénieur la abu ko sa papa yaa wax sama papa nekkul di eh, di ingénieur am mudarris am mudarrisatu ndax jàngalekat bu jigéen la umu ko sa yaay yaay sama yaay nekkul di jàngalekat bu jigéen atulaabu ndax ay étudiant lañ eh, xiwatu sa mbokk yi yaa si dugal laysa nekk eh, sama mbokk yi nekkuñ ay ay étudiant am mari daat ndax ay sens-femme sens-femme lañ axwaatu ko sa mbokk yaa si dugal lay mu nekk euh, sama mbokki nekkuñ di ay sens-femme amul darisu ndax jàngalekat nga ante yow am yaa wax yaa si dugal yaa si dugal nga wax ma nekkuma di di jàngalekat ak du ndax ñu bees lañ antum yéen yaa si dugal lay sa mu nekk mu euh, nekk ñu bees ak jadidatun ajadi ajadidatu ndax ndax lu bees la sa yaaru ko sa oto bi dafa jigéen moo tax mu def fa taa ba loolu yaa si dugal nga ne nga ne man nekk sama oto bi nekkul di oto bu rafet yooyu ju dana jublu almudarris si jàngalekat bi ilaa kullin si képp min tullaabi si étudiants yi asilatun ay laaj yoo xam ne yakun day nekk jawaabuha tontam bi naf yi si daax wéru dañ koy delloo aliya si moom ab taalibu étudiants yi mustaamilan di jëfandikoo lastu lastu yi yaa koy yaa koy tontu waaye lastu nga si dugal maam lastu muy firi nekkuma man yoo selo yooyu si yow lay waxal yow yaay wax lastu mais amin américa ndax américa nga jógee ant yow yaaw man nekkuma di jógee américa foofu lastu nga fay dugal amaridu ndax feebar ant yaa fi dugal lastu nga man nekkuma di ku feebar amutazawijun ndax aji am eh, soxna nga ant yow yaa si dugal lastu nga nekkuma di ko am soxna muhandisu ndax enseignant nga ant yow daa ci dugal lastu muy nekkuma di ingénieur mu ne iqra jàngal almisaal missal yi su maat xil topp nga dugal inna inna al jumla aatiye ci jumla yi dikk misaal yi yow yaa koy jàng nga daal di ci dugal li nga xamante ni moom mooy inna ci jumla yi nga xam ne moom mooy ñëw lii ñeel na ma salaasu axawaatin ñetti mbokk su eh, muy mooy boo si mu nekk lii naka ñeel na ma salaasu axawaatin ñetti mbokk mu ne aslu cosaanu moom salaasu lii salaasu mooy salaasu axawaatin ñetti mbokk lii ñaal na ma inna inna salaasu axawaatin naka ñetti mbokk lii ñaal na ma lu mooy cosaanu moom inna lii salaasatu salaasa mu ne fil fasli nekk na ci classe bi xamsatu tullaabin juróomi étudiant yu góor judi ñu yoo xam ne ñu bees lay yaa fi dugal inna nga ne nekk na ci classe bi juróomi étudiant yu bees lanaa ñeel nañu mu dari suñu jàngalekat jëy dun baax yaa si dugal inna eh, mu ne naka nañu ay jàngalekat euh, jàngalekat bu baax fii euh, fii jay bi nekk na ci sama pochette bi miati riyaalin téeméeri riyaal yaa si dugal ina mu nekk nak nekk na ci sama pochette bi euh, téeméeri riyaal fil hindi nekk na si ay dex kasiratu ñu bëri yaa yaa si dugal ina mu nekk nak nekk na si nekk na nekk si ay dex yu bari laka ñel na la barqiyatun lettre fi maktabil baridi si bureau ba ñu bindee lettre yaa si dugal inna nak nak ñal na la lettre si bureau bi ñuy bindee lettre lii ñal na ma alfu dollar yi junney dollar fil misri fi ci banque bi kon misri mooy firi banque yow li yaa si dugal inna mu ne ñal na ma junney dollar ci banque bi mu ne alkalimatul jadida yi ñooy baat yi nga xamante ni ñoom ñoo bes darsu baat yu bes darsu bi nag da ngay jàpp pour ëllëg bu bëggee wax comme baat yu mel noonu liqaa euh, liqaawun mooy firi dajee nahrun mooy firi benn dex jam mooy anhaarun ay dex maktabul barid moom mooy bureau bi nga xam ne foofu la bindee lettre jayidun moom mooy firi lu baax barqiyatun moom mooy moom mooy bi moom mooy barqiyaatun ay lettre jaybun moom mooy firi pochette la kalpe ju jamono moom mooy juyubun ay pochette musrifun moom mooy firi benn bank masrifun moom mooy firi ay bank kon tey loolu moo nekkoon darsu bi lépp lu si jub si yàlla la lépp lu si dëng suñu gàtt xam-xam ak suñu néew gëstu la ni uridu illa l-islaaha ma stataat wa ma tawfiqi illa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu